yéen ñi fekk si jotaay bi muy waa DS bi yàlla dogal tey ma woowoon leen ko ñu waxtaan ci fi réew mi tollu man la Serigne Abdou Lahad Mbacké Ndoulo gën maa xam Serigne Abdou Lahad Mbacké moom Serigne Cheikhouna Mbacké moom Serigne Sam Ndoulo di yëngu nag ci social waaye àndoon nag nag euh, ñi fi nekk muy président waaw àndoon ak ñoom laay sax ndax ànduma actuellement nii ngeen baal ba ma ak jigéen mag ak ndaw di ñaanal suñu xalifa Sénégal yi saa borom yàggal jiital sëñ Moustapha moom sëñ Moustapha Bachir di Serigne Touba tey di kaw suuf di ñaan saa borom yàggal ko fi ba naaj yëpp ñu ànd ko moom ñun murid yëpp ak jullit yëpp di ñaanale kilifa diine yi ci nekk ci réew mi yëpp saa borom may leen fan gudd ak liggéey bu jëm ca kanam comme ni ko seen wàllu bi teel ya bàyyee woon ak seen maam bi teel ya di leen ñaan ñu yàgg fi nuyu Sénégal góor ak jigéen mag ak ndaw président moom ku ne xam na ne. moom président Macky Sall bi mu faloo ak léegi coow rek moo moo am ci réew mi ndax li ko waral mooy euh, yàlla dogal na bi muy bëgg réew mi ñëpp dañ koo dañ koo dañ dañoo yaakaar ba fal ko man koo def dañ ñëpp dañoo amoon ci moom yaakaar ba fal ko ndax li mu woon ak programme bi mu tegoon jotee soppi euh, yàlla dogal bi mu ko jotee ku xam ne dafa jël réew mi rek problème yi commencé jàpp nit ñi jàpp Karim Wade bref jàpp. Khalifa Sall mu jur coow mu continuer waxoon na it ne premier mandat day def bi loolu jàllee def premier mandat gis nga ko 2015 mu defar mu defar référendum wax ne day def deuxième mandat fexe ban def euh, oui ak non boo xam ne Touba moom teel naa wax ne boobu d'accord problème yi am mu jàpp Karim jàpp Khalifa def euh, oui ak non daal di daal di jàll def deuxième mandat coow li continue deuxième mandat gis nga élection maire yi nga wax nii dañu respecté sàtt réew kilifa bu la dénkee dénkee surtout président liñ la dénk danga ko war a sàmm waaye buru ko yàq ku xam na ne 2019 la ñu waroon def élection maire yi mu bàyyi ñaari at di ko doog a def jekki-jekki rek ne nañ ko di janvier 2022 loolu mooy wàcc ma ca loolu it euh, ñoo ngi koy xaar ci législative yi ñoo ngi koy xaar ci élection maire yi di ko xaar ci législative yi ngir ñu man koo baatal Sénégal yi yëpp jëli seen i man mën koo duma duma yu métti mu dem yi ngir xelam du man a dem ci deux mille dix neuf euh, deux mille vingt trois waaye bu gagné élection maire yi te mënu koo gagné gagné yee te gagné élection législative yi Sénégal yi man liñ di wax ne da ngeen wiccax seen loxo ndax dina wax président dina wax euh, troisième mandat te loolu sax moom kenn du ko ci xaar ndax ku ne xam ne Sénégal yi dañ cee pare ndax la mu waxoon lépp defu bu loolu jàllee kon coow yi am gis nga ko euh, suñ ko jaar fi muy coow loo xam ne gis nga réew mi ni ni ni li ci xew ni nit ñi yàqule ak bruit bi mu am loolu it ma xam ma xamal leen leen tooñ nañ koo xam ne kat man sax euh, tooñ laa ko mën a tuddee ndax ku doon liggéey nañu dàq ko yàlla dogal sénégalais yi fal ko mu doon député muy Sonko lii xew nag moom du ma ci sori ndax mbirum massage ak ñàkk massage moom loolu euh, du ma ci sori loolu moom dama ci mënut ta sori ci ci ci ci doomi soxna ndax amul ma njariñ waaye li fi jot a jaar daal na dàq ko ñu falaat ko mu doon député loolu waroon naa tax mu xam boppam ba lii xaj na bu dee am na mu bañ ko mu waroon a bañ a demee noonu ndax mënoon naa demee ñeneen surtout ku bëgg am réew léegi yàlla dogal na moom ci boppam moom Macky Sall ci boppam moom Macky Sall ci boppam mu wax ne it moom ci boppam ñu wax ne dafa tourné dafa def tourné bu ñu fan waaye fa nga xam ne moom la wax ne fa la dëkk fa la njëkk a dem ñu yóbbu ko muy fari bom fere kii ci wàllu élève eh, maanaam sénégalais yi dañuy nekk ci internet bi di ma xasat yooyu amul njëriñ wala di wax wax du ñaaw di diisanteeg sénégalais yow ñu fal la ngay diisanteeg sénégalais yi di wax sax bay wax ay internet yu yi tëdd seen i bu gën xool actualité bi di leen saboote ci internet yi ñuy xool te pourtant corrigé la moo tax ñu koy xool ak gis lu jaar yoon ñu wax la ko dañoo war a defaraat internet bi defaraat site internet yi defaraat communication bi ba ñëpp dellu ci original a ñàkk gis nga fi mu bu ñu duggee Fatick la fa xew ñu yuuxoo ko mu dem Fuuta foofu moom fa la yaakaar moo ko moom gis ngeen Fuuta ak ñeneen ak ñeneen nga xam ne kon dafa échec ci tournée économique bi mu doon def loolu moom ku ne xam ku ne xam na élection maire yi ma wax leen ne ñoom ci boppam waa APR ñoo ngi Dakar ak fépp di créer ay mouvement yoo xam ne dañuy wane ne ay GIE la ñuy def dem ci gox yi yebal ay nit ñuy kidnappé nit ñi ndànk-ndànk ko jox la junni sa numéro carte d'identité ku ne xam na ne yim def ay votant yim def noo voté moo ëpp fopp erreur boobu ginnaaw bu ñu ci defee milliards yu du jeex xam ne yu bon yi mën naa dem sax bu ci defee milliards yu toll noonu kenn ku sénégalais boo xam yi ci ëpp noo votant la leen defal te a gañe bi loolu gis nga ko fi ni ñoom koy defaat ngir ku amatul ñu génn la sa carte d'identité fay la junni ngir nga voté leen nga xam ne ñun ñun leeral ni opposant lañ Oh, duñ woote waaye loolu sénégalais yi yéen sénégalais yi surtout jeunes yi na leen jaral ngeen xooli seen carte d'identité ba man a voté duma ko ci maire yi euh, ni ñu koy waxee législatif yi bu ñëwee ngeen duma ko ngeen xalaat bu dem ci euh, troisième mandat. bu loolu jàllee Touba gii ñoo ngi ñaan Cheikh Bassirou Mbacké Abdoul Khadir mu mu jéem a waxtaan ak sëriñ bi wala mu waxtaan ak sëriñ bi. ndax sëriñ bi ku ne xam na ne li mu nekk Mbàkke Balla li amul benn waxtu bu toll ni tarfatanaay bi wala benn seconde bu boo xam ne nekkul ci liggéey boo xam ne junniy nit wala million nit atomique mu boole liggéey yu bëri yooyu yëpp kon Mbàkke kat ñoo ngi sàkku nga waxal ñu sëriñ bi Tuubaa yaatu na yaatuwaay boo xam ne dëkk bu ñuy dem ba ne mooy deuxième capitale ci senegal li fiy jugee même première capitale ba Dakar boo nga xool ñoom ñaar li ñuy sëri bi mën nga ne Dakar sax ni capitale ëpp na lu muy dugalu kees lu muy dugal di Touba di dugal ci keesu réew mi Dakar daanaka ëpp réew ku ne rek cinq cent et quelques milliards da koy dugal at mu ne nga xam ne société yëpp a ciy gis seen bopp ñëpp a ciy gis seen bopp état gis ci boppam ñu fay ko ci ay ay ay ay ay ay yi ko ci yi ko gis yëpp war a fay mooy droit yi ko war a fay kon loolu ñoo ngi koy sàkk nga Cheikh Bass nga waxtaan ak président ndax tappale xam ne waa Touba ànd moom moo tax loolu sawaruñ ci waaye Touba dañ ko war a def dañ ko war a découper tas ko doonte ñeenti gox la ñu def ko mu am ay maire est ak ouest hôtel euh, maire de ville bii nekk fi doon maire bu mag bi assainissement bi ku ne xam waxoon ne balaa màggal gi biir si ñu defar assainissement bi defaruñu ñoo ngi sant morit yi jaarale ko ci Touba ci kanam gis nga liñ ci rek daaw waaye nawet bii di ñëw ren ku ne xam ne day ci biir màggal gi lay def ndax daaw rek ci cat yi nekkoon ren jii ren ci a dugg Touba dimbaliwuñ ci assainissement état defu fi ay ko Touba nañ waxtaan fuutaa ko tax a jub mu jaar Touba waaye daanaka booy xool lam waa Fuuta la ëppal njariñ ci respect te Sénégal yi pour war nañoo xam ne moom président ci boppam gis nga fi mu jot a jaar yëpp ci élection ne ne ne def tournée xoolal bawal ni mu ko jegee ak bawal li mu représenté ci ndax amul lu mu fi def waxuma la Touba boo waxee ñuy euh, maanaam lay Touba ne def nañ fi hôpital boo xam ne niveau Touba la foofu niveau deux ca përéew def assainissement bi moom rek la ñu a dimbalee ca mosu ko fee def courant bi yóbbu ci dara chaque année nga defi tappale ne yokku nañ ay poto ci yóbbu yóbbuñu man loolu lépp am defut loolu kon état ci boppam moom seen jëmi bopp nag nañu dimbali dëkk bi maanaam ñu def dëkk bi dëkku paas mu defaral ñu suñu assainissement ngir nañ ko bëggee ñu amee ko noonu muy Touba nit ñi nekk ci assainissement bu baax ndax loolu état moom moo ko war a def ndax Touba ngi dugal lu toll ci réew mi kon nañ ñu dimbali nag ginnaaw nañ ko laaj murid yi lépp sax ñoo koy defal seen bopp mais li nga xam ne nag état ay yoon ak ay lamp ak fajukaay nañu ko ko ci département bi mi ngi nii ñëw euh, région de Diourbel ndax amul defu fi dara benn ministère lañ am ca foo man a dem Touba li ko fi woteel kenn xamut nu toll li ko woteel département Mbacké rek moo ëpp li ko woteel Matam xam ne la mu fa am ci ministre li fa am ci directeur la mu fa def doon des defu fa dara ndax des yëpp defu fa lu am njariñ am na lu mën a def na fa dara Fuuta ci la li wote département Touba dong département Mbacké doo nga ëpp la nekk Fuuta gépp région bi région Fuuta bépp ca gis nga ko rawatina nag Touba rawatina nag région de région de Diourbel région de Diourbel booy xool li ñu ko voteel kenn xamul nu mu toll muy defu fi dara nit ñi amuñu ay yoon amuñu fajukaay amuñu dara. Touba na ko leer ne ki fi nekk ki ko fi nekkal wala mu wax ne moo ko fi nekkal nga xam ne benn conseiller lañu lañu lañu fal la la fi def ca conseil sax mën naa ko ñàkk tuddee conseil du dara muy Cheikh Abdou nga xam ne ñun keroog bi nga xamee ne président lañ àndal di ko liggéeyal ngir mu mën a dimbali suñuy gox ci principe yooyu yëpp lañu àndewoon ak moom ndax seet si na ma gisee nañ ñaari yoon moom président ñëw nañ du la. ñëw Touba ci yooyu yëpp maa ko recevoir yóbbu ko ci samay kilifa loolu lépp accord yi ma àndoon ak moom mooy ngir yóbbul taalibe yi yitte woon ndax ay fajukaay man loolu taxoon ma ànd ak moom man ci social lay dund waaye politique rek ak bëgg loo am soxaluma man damay liggéeyal Serigne Touba jaamu yi dëkk yi ma daan at saa su bi jàllee may defe tourné di ci gërëm sama waajur mu digalul ma ko xool bu wàccee ñaanal leen nemmi ko leen yi loolu ma ko daan def fukki at ba ni ma ko daan def taalibe yëpp ñi ci ëpp di taalibe kër gi waaye ñi ci ëpp di Sénégal yi murid yëpp ba ci waa kër waa kër bu ne ndax euh, dëkk boo dem euh, dina am ñeneen ñu fan dëkk murid boo demee dina am dëkk tijaan bu mu boo xam ne wala beneen dëkk xaalis boo xam ne dañuy sàkku nga jaar sama taalibe yi du suñ mbokk sama sama mbokki taalibe yëpp moo bokkal sëriñ bi yàlla dogal ñu ci bëri bëri ma fexe woon ñu gàññeel Macky Sall ngir ne leen bu gàññee sama xarit la ñëwoon du la seet si bu gañee dina leen defal ay yoon ay fajukaay loolu lépp ëmb defuñu ko boobu ba léegi damay bañ na leen ngeen yaakaar ne lañ ma waxoon def nañ ko ci defuñu ko defuñu ko ca yéen a leen voteeloon bokk ngeen ci ñi leen voteel kon maa ngi leen di wax ne élection maire yii bu leen voteel président Macky Sall bu leen ko voteel législative yi bu leen ko voteel comme Sénégal yëpp li ma waxee ne nañ ko defee noonu di ko sàkk ci ñoom ngir ñu soppi suñu réew ku ne gis na ne Sénégal yi fi nekk ci suuf kenn xamul noonu ci réew suuf la soxla jeune ndox fleuve baa ngi nii mënoon naa dem ci régions yi yëpp buñ ko jaaree fi ñu ko war a jaar du liggéey bu ndaw a jaral ndax day doon loo xam ne lu mu diis bu jàllee Sénégal yi yëpp seen bopp ca luñ fi dellu loolu la liggéey yooyu la war a xool du benn rek la war a dimbali naan def na dañoo war a yoo xam ne en tant que état politique bi da koo war a dajale ci yi yëpp yëpp am ko mooy emploi des jeunes mu créé ko ci région yëpp ku ne xam na ne. li doon maye xëy yëpp signé nañ koy contrat jaay ko mu dem loolu ñu sonal ndax booy xool gis nga pes bi. Euh. un million ci liggéeykat la amoon boo xoolee ñu góor seen ginnaaw kon borom kër bu ne war ma 3 millions pes bi moo doonoon li nga xam ne sénégalais yi bokk na ci li ñu doon créer emploi ñu yàq jën yi gis nga jën yu baax yëpp jaay nañ ko jën yu baax yëpp jaay nañ jaay ko tubaab yi. ca jéem bi loo xam ne ñi ko xam sax xam ne moo gën dawal baal ma damay kii rek misaal moo gën dawal ci ñi xam sa ak nga xam ne kon mooy bi la saa borom may nga war koo sàmmal sa réew ngir ñi ëmb doole yi mën a jëfandikoo li ñuy wax ndawal ndax dañ koo seeral ndax euh, yiy dundal euh, maanaam ministre de l'élevage yiy euh, yi mu yomb conservation dund bi yombul ba lépp a seer ndawal seer kon yéen yi nga xam ne saa borom ñu ko may nga jaay

nga xam ne senegal yaboy lay dunde ca jën yëpp man ngaa wàññi lu mat cinquante pièces yoo xam ne yëpp yu baax la yaboy yi ci gën a bon ñuy jaay lépp bàyyi ñu yaboy bi ca téewul daa cher nga dikk ci jur gi bétail bi cher kon caaxaane nañ pes bi manoon ci am ay liggéeykat yu yu romb parce que 3 millions wala 2 millions ñu caaxaane mbay mi gis nga ko Sénégal am jeune am àll kër yi wuñ xotti yoon yi wala ñu xotti fleuve bi ndox mi demaat duggaat Sénégal ci région yëpp ñu xëccaat ay forage topp ko département par département commune par commune fépp am ñu créer leen commune bu ne ñu fexe ba def fa bërëb yoo xam ne ñu leen di euh, tàggat na ci wàllum bay Sénégal yi bàyyi bàyyi bu président defee dara ñu war a def junni def ci téeméer ñu lay sant. loolu du warugal du du waruñu koo sant. li ko war a sante mooy lam ñu waxoon mu def ko ba doon ñu waaye lam ñu waxoon defu ci dara def ci lu néew ñu koy sant loola la waral bu ñu dem ay es ay garde corps topp ko ñu jox ko suñu pare bii jëndal ko avion boo xam ne bërki démb boo jaay ku ne xam ne ne cinquante milliards la ci def ca waroon na gën a farata loolu ku ne xam na ne manqué nañu ay hôpital manqué ay poste de santé yu baax sax ak carte de ko ci wàllum fajukaay ci région bi yëpp nga jël cinquante milliards di ko def ci da ngaa war a am avion pare da ngaa war a tukki te ku ne xam na ne gis nga buur euh, Maroc royal air Maroc lay tukkee day def fi mu ci am présidentielle bi mu ci am passage bi de day tukkee bu waree dem nag ndax li muy tukki bëriwul moo ko war a dal moom muy toog tël réew mi waaye fu mu toll di dem kee bu waree dem dañuy jël air première classe diggante bi nga xam ne fa la war a dem sensé si si denc ci ginnaaw ci avion bi defar mu a dem sama bi bu tukkee wax waa passagers yi muy dem loolu ñi ko gën a gis nga ko royal air moo moo président Maroc buuru Maroc gis nga ko Kadhafi li ma lay wax ne dafa bëgg nguur xoolal li mu yor ciy forme xoolal li mu yor ciy forme li mu yor ci oto yoo xam ne benn bu ne 100 millions lu mag 20 oto nga xam ne mën nga ne 20 oto yoo xam ne benn bu ne 100 millions lay jar da koy ëpp sax. xool caméra lay àndal. fu mën a dem rek loolu di lakk essence oto yoo xam ne fii ne presque presque 200000 bu bu président tukki dañ ko ciy def nga ànd ak oto yoo xam ne daanaka ay jaaxaan yi kese kese kese nga ànd ak ñoom jënd avion bu cher jënd yoo xam ne daanaka. président France benn oto koy topp moom mi bu demee France fu man a dem oto bi ñu koy jox lay àndal ak benn garde corps ak oto euh, police municipal boobu nekk municipal boobu nekk. loolu gis nga Paul Kagame mi am fulla moom di defar am réew en tant que ñu dégg ko muy def la mu war a def moom ci boppam da ne du jël cortège man loolu may ànd. ak ñu doon liggéey liggéey bi dem waaye cortège bi ñuy def yàq la xaj na ci réew mi loolu Paul Kagame la moom la def waaye moom saa su départ la ci milliards oto yi milliards yi milliards la yor kon moom moo gën a xam Sénégal yi liggéey ndax xaalis boobu ak loolu muy conseillé am na fu mu xajoon waaye moom ci jëm boppam xamul loolu nguur ko fi bàyyi dinaa nguur a ko na a ko fool ne fool keneen koo xam ne mën nañ koo fal buñ ko may daal 23e buñ ko may daal incha ndax 23 juin bii ñuy wax barki bi mu jàll. ñoo naan euh, bi ñuy xeex bokk na ci troisième mandat moom fa la toogoon fekke na man ma fekkee ko maa ngi moom bokk fu mu toogoon moom président. 23 juin nga toog ci rond point bi ñu toog ci monument bi man ak moom ak dans soxna dem si yàlla si Abdoulaye Bathily Moustapha Niass Cheikh Baba Dièye bi ni takk boppam ñoo ngi toog nii ma dend ak président ma dend ak moom bii di président tey moom Macky Sall ak ñoom Moustapha Niass dans soxna ñoom ñëpp toog. maa ngi fàttali ko Aïda Sall Sall mi ngi def ministre des affaires étrangères mi ngi toog waaye euh, yàgg nañ fa ba moom sax daa sonn ndax bi yi fi jeexee bi muy dem maa ngi ko gis mu taxaw ci balcon di tàllal loxo loolu fàttewu ma ñun dañ fa ay coono yoo xam ne ba ñun troisième mandat am ñoo taxaw kon nag bu bëggee troisième mandat loolu du sot du du sotti loolu moom na ko xam dinañ ci ànd ak moom xeex ci bu baax a baax a baax a baax mais bu bëggee troisième mandat du sotti élection maire yi fépp fu mu fu fu fu ab ab ku bokk ci moom gañe woon benn bokk yaakaar sax laay wax damaa jël ne APR nan leen fa jëlee ndax man nga ko commencé ci maa ngi dégg ñoo xam ne seen loxo seetul ñu ne dañuy bokk ci élection yi dañ koy xëccoo bu ko sali ku ne xam na ne APR la bokk ñu jàpp ko fa laa gën a bëri ci faux billet mu tëdd lu tuuti mafia bi génn ko yaa ngi dégg ku ne xam na ne xalifa euh, ku ne xam na ne euh, Mansour Faye Mansour Faye milliards yi ko joxoon ngir mu séddale ko ci corona bi ceeb bee pasta beeg diw gi amut suivi léegi ak yeneen ak yeneen yu koy jiiñ bët ki démb la ab borom génn muy Adama Faye xawuma ko mais ko ma neex la ndax li nekk ci biir tax koo wax dëgg ma dégg muy wax ni ni maanaam muy wax dëgg ca waa APR kenn sañu cee gis lu dul dëgg wax ko président ndax dañ naan da ngay nekk ci parti bi euh, li la neex nga ja nga boole koog li la naqari loolu ay kilifa kilifa ma ko wax. li la boole li la nekk boole mm-hmm. président dëgg réew mi soppi mbirum nervi xam liggéey ku ne xam na seen diplomatie ku ne xam seen xereñ gendarme mu ko ba saay-saay bi sax dañ naan ko ñii di jàmbaar yàqal leen ngir seenu der mën a yàqu ca loolu intérêt personnel da koy waral muy nervi général Fall mi ñu dàq ngir wàllum defe naa di wax ci lim xalaat ci wàllu mbir bi ni ñu jaxasee réew loolu ñu dàq ko ci loolu day yàq ñi nga xam ne ay waxkati dëgg lañ ñiy waxkati dëgg sax loolu mënuñu ko président mënu leen a ko xoqatal ba ba duñ wax dëgg waaye am na ci ñoo xam ne dañuy yàq loolu nag na sàndar nga xam na sàndar na ñi xam seen bopp xam ñi yàq ñu denee sëriñ ñu génne leen ci police bi nag moom waxuma ay wax ay jàmbaar lañ waaye bëri na ñuy faay lool ñoom it dañoo bëri ñu leen di yàqal lool te bëri na ñuy góor bëri jàmbaar bëri ay jullit bëri ay chrétien ak ñoo xam ne ñëpp yeneen diine lañ bokk waaye respecté seen diine seen religieux respecté Sénégal yi di rafetal ñoom policiers yi waaye li ëpp yi ci ñoom am na ñoo xam ne dañuy yàq ñu ñoom daanaka ñoom lañ gën a xamee nervi yi ñoom ànd nervi yi gendarme yi dinañ ànd nervi yi waaye policiers yi dañuy ànd ak xool. ca loolu day yàq it seen image nañ moytu loolu ca xam ne ay sénégalais lañ lànk kandaare bañ a nangu nervi yi ñu ànd ak ñoom même ñoom bu dee am na waa police yu ànd ak président wala waa waa waa gendarme yu ànd ak Sénégal bu ci ay nervi bañee ak ñu wane ne ñoom seen président déglu leen fa seenum bëgg a liggéey réew mi ndax ñu doon gendarme wala mu doon police wala ñu doon militaire président mënu leen a fool wàcc leen wala affecté leen fu sori doomu la man ca boo demee dëgg fu nu la affecté dem fa dëgg saa borom dem fa dëgg saa borom la bàyyi kon nañ nañ xam loolu lu bu li naree booy nervi yi ñu ñu lànk te nervi yi ñu xam seen bopp ponkal mu topp géej ñu lay fay vingt mille francs nga war a dundal say waajur war a bokk ci population bi amal yu njëriñ war a dimbali jeunes yi bokk ci jeunes yi nga xam ne dem ci géej gi ak taxawal ak ñu lay jox vingt mille nga ànd ak président bi di di toroxal Sénégal yi comme ñoom loolu ak comme ñun comme ñoom loolu ak ñàkk jom la nervi xam seen bopp góor jigéen moom duñ ko maslaa kenn président wax na ne li fee mi ngi fi du am waaye am na parce que euh, boo bëggee légalisation boo demee ñu légaliser la ko. Euh. li ñu fi araamal mooy rek ñoom nga taxaw di ko wax publiquement waaye ñu ko bëgg a doon ñoom fi ca aar nañ leen kuréel duma bu mu la toppee ci yoon ñoom dañ lay indil problème ñoom état bi. ca loolu na ko Sénégal yi xam góor jigéen bu dajee dajeel nañ ko duma góor jigéen bu Sénégalais yi dajeel nañ ko duma bi. taxawaayam soriwu ci du ma tudd man ñi nga wax léegi ne ñu ngi ciy coow xaw ma ñan ak ñan loolu intéressé waaye kuñ ci mën a wax kuñ mën a tudd daal tudd góor jigéen di yàq li ñu maam yi bàyyiloon di yàq société bi di yàq ndaw ni kooku moom nañ ko duma ca président yi na ci taxaw taxawaay boo xam ne légalisation yi ñu defal góor jigéen ñi ngir boo demee ñu ne ñoom fi ñu ko war a jaar boo ko fa jaaree am ko nga xam ne doo sañ a yëkkati ca kaw waaye sañ ma koo doon ñu wutal la kayit nañ ko dindi ca bàyyi caaxaan yi uh-huh. réew mi daal sàcc si bëri na mafia bi bëri na sàcc yi man ko ko commencé Sénégal nañ yeewu ci kuñ fal rek mu sàcc ñu dem milliards yi ñu denc ko loolu uh, lu métti la ci ñun mais waral na maanaam uh, semence bi di gën a kii yow buñ la falee ministre cinq mois nga sàcc milliards denc buñ la falee buñ la follee liggéeyoo dara continuer di dund dund koo xam ne sëñ bi li ngay yor ci Mercedes ak li ngay yor ci Land Cruiser li ngay yor ci gis nañ fi ñoo xam ne seen ay Maybach euh, ak Ferrari Rolls lépp lañ fi yor muy doon ay deux yoo xam ne weekend da ngay dajee si da ngay dajee ñoom ci ci ci ci ci restaurant yi nga xam ne da nga fay dem wala hôtel yu mag yi nga xam ne da fay dem ay séminaire walla di di am ay maanaam ay euh, liggéey bi ci réew ñoo ne da ngay waxtaan ak ñoom en tant que ñu dimbali la ci say gox nga fay daje ñoom ñi def ni ñoom ngir bëgg a yóbbu sa gox la nga bëgg a yóbbu léeg-léeg dang dang boo fa demee ngir loolu da nga leen di gis ca da ngay gis ne taxawaay yi sàcc yëpp moo tax loo ci gis bii lay doon ak rafetaay maam milliards yëpp ñu sànni ko ci compte au lieu que ñu koy wulle di ci liggéey Sénégal yi di ci jariñoo mu créer emploi waaye seeni billet lay doon sàcc milliards mu doon billet d'avion ak essence ak oto yu ak ak oto yu rafet yoo xam ne dañ koo sàcc loolu moo war a jeex ci réew mi. merci sàcc yi dàkk réew mi jub seen yi jub am xam li ñu bëgg bañ ku leen jënd fas yéene génn am fulla ñu gagné président ñu changé koo xam ne kat lim ñu waxoon dina ko def lim wax dina ko respecté bu ko respecté wu ñu jëlee ko fi jëlee ko fi indi keneen. Sénégal yi bu bu politique yi bu politiciens yi sonn ci li ñu caaxaan nañ bañ a sonn ci fexe ñu leen soppee. ku bon ñu yóbbu ba am ku baax bañ xam ne soppiku nañ ngir ku ñëw la muy wax mu yóbbu ko fa ne mu respecté ko ñu ànd ak moom ay patriotes yu mel ne Paul Kagame ñi fi jaar ñoo xam ne ay bañkat la woon jariñ Afrique wuteeg ñi nga xam ne ñoo fi jaaroon doon ñoo xam ne kat Afrique euh, gëmuñu Afrique topp tubaab yi def leen bay bàyyi ba tey moo des fi ci suñu président yi ñooñe moom amuñu njariñ Afrique amuñu njariñ seeni réew nan leen folli te ñi gëm ne ay patriotes lañ bëgg a defar réew di ay patriotes yoo xam ne ay président ay patriotes lañ ñu xeex booloo doon benn Afrique dajale président yooya bañ am liñ bëgg ndax Afrique la lépp ne